di remercier aussi ñep ñi nga xam ñep nañ ci bés bi pour mu mëna réussir alors que le directeur de Afrique aéroportière monsieur Cheikh Diouf di remercier sama collègue yi sama jigéen yi ak sama xarit yëpp ñëw assist ci si daru salam bi ndax fête la lu taxoon ñu organiser ko dañoo gisoon yottul woon si période de vacances xam nga période de vacances souvent xale yi dañu am liberté te liberté boobu mën na leen dugal si naka sudul noonu ñu ne nag pour occuper les jeunes là pour ñu mën leen a téye nañ organiser benn tournoi benn action boo xam ne na leen permettre ñu mën di daje à de temps en temps ñu ne nañ def benn tournoi après dañuy jël Darou Salam on a pris Darou Salam ñu diviser ko en quatre quartiers Darou Salam 1 Darou Salam 2 Darou Salam 3 Darou Salam 4 et au terme des compétitions ay match aller retour la woon si lañ arrivé tey si finale tey ñu ñëwoon daje fi tey pour jouer finale bi entre Darou Salam 2 1 ak Darou Salam 3 loolu moo waraloon daje bi tey dañ ko defoon pour accompagner aussi au delà de de de ça aussi pour tey booy yi dañ ko defoon aussi pour accompagner leen ndax si biir loolu aussi am sa si ñoom ñoo xam ne dañuy jouer football. parce que nag am na même si biir quelque quelqu'un boo xam ne sélectionné nañ ko si équipe nationale. c'est pour wax rek ne aussi au niveau de Salif fii am na jigéen yoo am ne aussi ñoo ngi yëngatu si wàllum football. tournoi bi aussi na lay permettre accompagner leen na lay permettre aussi ñu mën a am compétition. peut-être kooku nga xam ne sélectionné nañ ko dina ko permettre bu mu demee tournoi bi balaa muy dem peut-être dina dina gën a am compétition mais dina permettre aussi jeunesse bi ñu dajee di waxtaan seen biir di saafante seen biir dañu permettre aussi au delà si ñoom ñuy football ñun daaru salaam képp koo xam jeune la ñun ñu toog gën a ndax xam ngeen sali aussi da boo waxee daaru salaam surtout koñ bu beex la à chaque jour am ñu fi ñib si donc genre tournoi bi day permettre ñu gën a suñu biir mais aussi lien bi gën dox suñu biir donc loolu moo waraloon tey daje bi ñu ñëwoon fi daje pour assister finale bi entre Darou Salam 1 ak Darou Salam 3. pour les parrainages rek aussi damay lancer un message samay collègues yi déjà présent ñoo ngi si. ñoo ngi si parce que on a des déjà les fiches de parrainage ñoo si terrain def la collecte des parrainages fii à sali le travail a déjà démarré et ñoo ngi koy def bu baax a baax. dama leen gën a soñu aussi bu ñu fi jógee aussi lii bu jeexee tournoi bi dañ gën a dem tour dañ gën dem terrain bi aussi. pour mottali les gens qui ne suñu la ak parti bi ndax militant aussi du politique boo demee parti bi il faut aussi yow nga donc maa ngi lancer appel aussi Nous gën citer un si participer aussi au parrainage bi c'est dans les 1500 500. donc dans deux semaines nous aussi à notre côté avec le directeur des affaires aéroportières nous mën ko les 1500 là Lolo moi loo xam ne ñun dañ ko